20 bi ñu ko tegee loxo jàpp léegi journaliste bi di Pape Alé dakkalul benn yoon grève de la faim bi mu sumb ay mbokkam ak i jege ñaalem ne si njàqare gu rëy ndax jamono ji lii di wér gi yaramam dafa tàmbalee yàqu gannaaw bi nga xamee ni nangootul topp ndigal waykër docteur yi koy saytu su l'hôpital bañ ko enterré ñu bari noppi wuñ di sàkku teggi ko loxo moom Pape Alé rawatina société civile bi ba ci mboolem kuréel yi ëmb taskatu xibaar yi ak ñi sàmm ak ak yelleef nit ñi waaye tam woy politique yi desuñu ci ginnaaw kenn ci avocat am yi xamle ni moom li ko tiital ci mbirum Pape Alé moo di ne ab jéye mën na see juddu ndax sonn na trop sa fa ne di sa urgence te teg ko gët jafe lool am sax ñuy rotal ne mu ngi si diggante dund ak dee gannaaw fukki fan ak ñeent yi mu toog te lekkul ndax jotul ñu wax si laata bay di woy mbuus kaaw imaam ba dara ndaw ak kii di François Mancabou gis nañ ko fi politique moo ko lal am déet loolu du wax ji jamono ji wax ji kay mooy ñu bako mu dellu sa këram si wetu njabootam